ma tàmbaleeti te wax na feeti te xam na feeti njariñu màggal ku jóg di màggal ni yàlla màggal def na la màggal danañ la jiital ma wax la màggal yàlla màggal ku ko màggal danañu la màggal li Bamba woote ni kuñ ko wuute digg ci mbernde looloo di màggal dix-huit safar mi ku ne ci réew mi xam na rekk di màggal Faranse xam naa Almaañ xam naa lii moo di màggal waral na kon tey jii ñuy gonte kay di dajaloo kay waxtaane màggal murid yi jógul leen waa safar yeen ci ak ñaan ñu jekku màggal waral na kuy ñëw Tuuba muy aw ñam wadda koy aw ci barke ñu yóbbu ñam yaa ci hôpital yaa ak prison ya ci barke bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci magal képp ku magal bis bi magal magal dëggal des na la magal fonk ko moo war ko moo ku ko deful warum ki woote maagal Bamba danoo moom amul ku dul moom nañ toppi digg leem dafan ko maagal bépp bu booloo dajee di booloo nañ jima booloo waxtaane maagal gàcce ganul rëy nga nekk fii xëy te bis ba doon tey ngay gan ci la mandaree di ren di ko bernde ki bernde mooy mbir mi berndeel bul ni jigéen la te bul ni ndaw ak sant yàlla bawul ko am xel te sant yàlla ak jaamu yàlla ak awlu bon la rekk di magal sant la leen ma yàlla mi may ma lépp te jox ma bis bi di magal ku sant ndol leen di ñëw te ndol leen lu yàlla doog neen nan fonk màggal ku dëkk Tuuba na fonk bis ba yaatal xolam ba ganam ña fay dal da wàcc lal yi te génn néeg yi dugg ci waañ yi te jéem a suural lu taaf neex wuti ko tey roox sawum daxak la fajaru magal kaku ananas waajal ko magal kafe gi buukar fanta ko kaanjar luy dem ci abiir waajal ci magal abaara ay xar defar ko bam ñor di dana day war moo baax ci magal wutal ginaar saaf derof ko bam safiim boole ci ay yëfiim ci biisu màggal lépp lu sedd neex sell tedd na nga ko jënd mu dem ci màggal na ñëpp suur lool te man di lool lool te sant lool lool ci bisu màggal bu kenn jàmbaat lépp na xaymati bu kenn xeebiti lenn ci màggal na kër yu yaatu na xol yu yaatu na mbég mi yaatu ci bisu màggal dalu yi ak dañu kër yi nañ yem ci mbir yi nañu ko waajal na bépp maase neex lépp maase jag ñépp maase sant ka gi jël murid yi waaj leen dix-huit nafar yeen day jàng Qur'aan waajal ci màggal ñaanal ci gan yi te ñaan xewal yi bari ba gan yi sant ga gi jël ku bernde bis ka am xel man ma ci santal yàlla te sellal murid bu am jom ba mu bëgg ndam màggal ca lay jëm du xew du jeetal dégg digal te magal gi dégg ba di ko magal gi lañu am amuñ lu dul moom nañ farlu am jom te di ko waajal magal gi rek moo teenu dëkk niiraanu dëgg murit bi santal budul ko dem gi sëriñ bi rek dem ci géej gi nuy dem niiraanu santal sëriñ bi maagal la digg la déggal bernde ci maagal murit bi day sangam ba ba gëm tey jëm ca lañ ko tànnal bàpp ndigal yi moytu tereem yaa soobu ca ngir yaa te a féetal dëkk bu new yoon moo ca jëmu yoon duggul ci am neen féttalu baaxul dëkk bu new yoon moo ca jëmu yoon duggul ab teen fettalu baaxul murit du yoon du dem ci ak neen koo gis mu yoon murit sellul ku ni murit ci yàlla bu ne murit sellul nañ tuubi mooy te jëm ci mbir yi wàcc ndam yi te jëf ba jeexal ku aw fanam dees amul mu jëm mu tusum na li mu fas bu dee ku am xel ku war di fas wi dafa fas wi wallahi fas wi dana la àggal telam wi yeexul te njab li sooful fas wi di màggal defal ko am xel ku raw ji maagal raw na te dootul suufe te dootul tale ji maagal yàlla nu jeeku màggal te jeeku lépp te ngëb ko ndax mën a màggal yàlla nu am jom ndax mu bari lu rëy ci xaadim mi woote maagal la may ñu xam ni sëriñ bi moo gi laa nanu ko waajal la may ñu jàpp sëriñ bi jàpp gi jàpp du wér te yeesal bara yi da gan yi jël alal yi def ko ci sëriñ bi moomoom alal yi moomoom lépp lu nañ fonk màggal sëriñ fonk nanu ko fonk ku gore fonk bis bi yal na nu jeeku màggal te jeeku lépp te nëb ko a ku dégg way te dégg njariñ li yal na nga ne leen ma amiin ci barke mi woote màggal màggal gi moom la am màggal gi moom la jëm màggal gi mooy sunu ndam jaajëfe gi moom la am màggal gi moom la jëm màggal gi mooy sunu ndam jaajëfe gi sëriñ bi rekk am sëriñ bi màggal gi la am màggali Tuuba la ñu gëm di sant tey gërëmati nan déglu kii di jëwrinam tey jéem ay waxam ay jéem a roy ci pafasam di sant tey gërëmati ku ne na jàpp la mu gëm ta bàyyi noog nun li nu gëm sëriñ bi rekk la nu gëm tey sant tey gërëmati te bàyyi noog nun li nu gëm bi rekk la nu gëm ay